yéeg si nañ ci fas yéene ci dalal euh, Seydina Omar Ba moom la ñuy dalal bu nees ki see lay doon ci euh, baatu askan wi Seydina ñu ngi lay nuyu. dina fay naka suba si sant alhamdulilah. Euh, yéen kaay yi moom la gi nga xam ne mooy ko dañ ko jamono ci diggante DG ak Sonko waaye tamit coppite yi nga xam indi nañ ko ci Sénat bi la ak ci processus électoral bi la yéen kaay gi boobu léegi ñu ngi xaar opposition wax si waaye dañ ne pat pat googee nag doon lu jaaxal yéen kaay gi Walf Quotidien ba tax tey ji ay xëyee daal ci amal ab taxaw seetlu yéen kaay gi xëy dellu soit ci wàllu santé publique gis nañ ne lu ëpp junni ak ñeent téeméer xale xool nañ leen sa yaram gis ne dañu am wopp ji di jabet euh, noonu la ko yéen gi di wàllu côté ci euh, daal euh, ña nga ne tekk la ko yéen kaay gi xëy fësale nee na ci jamono ji nga xam président Macky Sall ma ngay doxal Eh, di def lu ko neex jamono ji opposition bi kon ñu ngay ci moom it am mooy fexe éliminer képp koo xam tap jàpp na ne eh, mën na koo xañ mu toogaat ci nguur gi moo eh, fii daal fii daal lañ problème Khalifa Sall mujjute fenn mbir Ousmane Sonko foofu lay jëm du mujj fan noonu la ko yéen a kaay gii di la tribune xëy fësale yéen a kaay bi di euh, Sud Quotidien présidentielle 2024 Macky Sall donte la sax mu ngi def kem kàttanam pour jéem a maanaam tooj kii di Amadou Ba mhm. waaye Amadou Ba est-ce que du doon ab euh, ab yéen wu diis si moom noonu la ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy fësale yéen a kaay génneen 24 heures yéen a kaay gii di 24 heures xëy amal ab taxaw seetlu jëmale ko suñu justice bi lee ak taxawaay bi nga xam ne taxawee jamono ji yéen a kaay gi ne neexul ba neexul bañ fi nekkee ba léegi respecté wuñu lépp lu ay ci wàllu yoon euh, yéen a kaay gi nag xëy dal ñaawul taxawaayu opposition bi ci wàllu woowu noonu la ko yéen a kaay gii di 24 L'Observateur xëy fësale yéen kay gën audience spéciale mu soxal Ousmane Sonko fukki fan ak juróom-ñaar ci weer novembre lañ koy jàpp Ousmane Sonko nag nee na moom àndul wala dàq na juge rapporteur bi Abdoulaye Ndiaye moom daal nee na du mooy àndul si mu mhm. teewee ko euh, noonu la ko yéen kaay gii di yor yor xëy fësale Abdoulaye euh, fës na ci source audience bi ñu ko jàpp ni fukki fan ak juróom ci weeru euh, ci weeru novembre bi ñu ne Euh, ju euh, doyen des juges euh, moom wala agent judiciaire de l'état moo déposition moo ci yoon moo def recours mhm. ngir jéem a contesté décision bi nga xam moo tukkee ci juge Sabassy premier président na bu cour suprême Ali Siraj Bah moom nee moom fas yéene jiite audience bi lee bi nag consigné du tolloog fukki avocat Juan Branco moom it bokk na ci avocat yi nga xam ni ñoom la ñuy ci ca suprême ngir ñu aw layil kii di Ousmane Sonko noonu la ko yéen kaay gii ak xëy Macky Sall def na ko ci boppi réew mi fukki at ak ñaar président def na ko ci réew mi mm-hmm. waaye mbooleem décision yi nga xam ne nii euh, waa CEDEAO joxoon na euh, jël euh, décidé jël nañ ko mu soxal fukki at yi président Macky Sall ko noonu la ko yéen kaay ngir suus ak xëy fësal yéen kaay geneen le mandat yéen mandat xëy dellu saa ci journée des forces armées Macky daanaka ma ngay delloo njukkal suñu armée bi mi ngi ci yéen kaay gii di la mandat yéen kaay geneen laas journée des forces armées président Macky Sall ma nga yëkk ay kàddoom di wax la nga xam jot na ko def ci biir armée bi lee waaye tamit mu ngi delloo njukkal bu baax a baax suñu armée bi teg ci tamit di delloo njukkal teg ci tamit leen tàggu Euh, noonu la ko yéen kaay gi di laas xëye fësale réew mi quotidien bëccëg bi ñu jagle suñu tàkk der yi lee président Macky Sall moo ko doon jiite mu nekkoon nag jiitam gu mujj mhm. euh, ci bés boobule foofu sax yëkkati na fa ay kàddu kon daal di delloo njukkal armée bi laata moo tàggatoog ñoom noonu la ko yéen kaay gi di réew mi xëye fësale yéen kaay geneen le soleil yéen kaay gi ne président Macky Sall nee na ak euh, défense nationale amul prix noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale nee na ci diggante 2012 jàpp 2023 lañ fa dugal ci koppar toll na ci 250 pour cent mhm. moom président Macky Sall nag gannaaw bu mu delloo njukkal ñi nga xam ne armée bi Euh, tàggu na leen noonu la ko yéen kaay gii di la Soleil xëy fësale yéen kaay génneen la ko immigration irrégulière nee na bés bi yàlla sax dafay gën di takka masi lim bu takko takko ci ay soxna ak i seen i doom daanaka daal ñoom ràññee nañ leen ci mhm. am na sax ñoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan ndax état bu Sénégal jël décision ne mbir yi daal foofu ñu jëm ci jël ay matukaay noonu la ko yéen kaay gii di la Quotidien xëy fësale stade moom lu mu fësal wax ci Ligue des champions